سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على من ترقى وعلى ورأى ربه الذي فيه تجلى خالق السماوات عز وجل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العلا ترقى إلى السبع الطباق ترقيا حقيقا ولم يعبر سفينا ولا جسرا وبالجسم أسرى الله وهو دلالة يمحلها من لا ييسر لليسرى فسبحان من أسرى إليه بعبده وبورك في الساري وبورك في المسرى عن مدد الشيخ أبي إسحاق سادة الحضور أساتذة ومدراء ومستمعين منصتين إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغ العشر من قول تبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين إن الموضوع الذي نحن في صدد الحديث عنه يخص مؤلفا ومؤلفا من مؤلفات هذه الحضرة المترامية أطرافها اليانعة ثمارها والوارفة ظلالها حضرة الشيخ إبراهيم حضرة العلم والعلماء لحضرة الشيخ سر ظاهر بادي لأحوذي صحيح الفهم أو بادي إن تأتي حضرته لعلي اجتمعت بها بالضب والنون والملاح والهادي أما المؤلف فكما تعرفون جميعا هو غني عن التعريف وموصوف بالمعروف ومألوف بعنايته الجبارة بالكتاب وال بعنايته الجبارة بالكتاب والحديث الشريف وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وأنا آثرت في هذه الوقفة بالذات عدم الخوض فيه وفي التغلغل في تعريفه نزولا عند رغبته غير أن هذا لا ينهنهني من أن أتضرع لله سائلا له طول العمر ودرك المراد مع جميع كبار هذه الحضرة فأكرم بالإمام شيخ الماحي حماه الله ما دار الزمان وهذا المؤلف الذي في متناول اليد أقل ما يقال فيه أنه بيان يخرج القارئ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فهو مؤلف قيم يداوي القلوب الغلب والأعين الرمد كما يقولون هو قيم لدرجة أنه يستحق أن يرسم بالذوبان الذهب الخالص لضمه بين دفتيه المباركتين علوما ومعارفا وحكما لا ينضب معينها ولا يجف منبعها وشرف كل علم وشرف كل علم إنما هو بشرف مدلوله وهذا البحث العلمي تناول فيه قضية الإسراء والمعراج وهو حدث عظيم وقضية أصيلة في الإسلام لها مكانتها العالية لها مكانتها العالية ومنزلتها الشامخة ونتائجها الفائقة وإن قدح وشكك في كونيتها بعض المتمردين أو كما يحلو لي بعض الغافلين المجردين عن نور اليقين منطمس البصيرة والبصر سرى بك ليلا ثم أدناك راقيا إلى حضرة لم تلف موطئها أخمصي تجاوزت أفلاك النجوم وقدنا لك العلم والأسرار خير ممحصي فنلت مقاما قد تقاصر دونه جميع هداة الخلق من كل مخلص ومن هذا المنطلق أود تسليط الضوء على بعض أبواب هذا الكتاب مع إيجاز غير مخل فالإيجاز كما تعرفون له ضرب مخل وقبيح عند البلغاء وربما عد من أنواع اللغز ولسنا هنا لذلك وهذه الأبواب الثلاثة أولها صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فقد ورد في الصحيح من المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم فقال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فبدأ بي بالسلام وأثبته الذين اعتنوا بالتقييد التراثي ولاكته ألسنة الشعراء هذا البصيري يقول في ميميته الراعية سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبالتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وشيخنا عمر الهاشم يقول فأنت سر وجود الكون أجمعه والله بالرحمة العظمى حلاك صليت بالرسل في الأقصى على نعم وسر إله الكون جبريل ناداك فإذا صلاته صلى الله عليه وسلم ثبتت في المنقول عن أئمة هذا الدين الحنيف وكانت الصلاة بأرواحهم كما ثبت ذلك شيخنا شيخ إبراهيم رضي الله عنه غير ما مر والباب الثاني الذي وقفت عليه وقفة قاطفة هو هل الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد أو بهما معا أو بهما معا وما رأي الشيخ إبراهيم رضي الله عنه في ذلك لقد حاول الباحث في هذا البحث الرفيع تثبيت كون الإسراء بالروح والجسد كما عليه أطول المحققين باعا في العلم واستدل بأقوال العلماء والأحاديث المتواترة الصحيحة فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة, فل البارحة فلم أجدك فقال له رسول صلى الله عليه وسلم إن جبريل حملني إلى المسجد الأقصى فإذا اعتمدنا على هذا الخبر وعلى غيره من الحجج البالغة والبراهين الساطعة يتجلى لنا واضحاً أن الإسراء والمعراج حدث بالروح والجسد كما هو المستوحى من آراء العلماء الأجلاء وقرائحهم فلولا أنه حدث بالروح والجسد لما أحدث جلبة وضوضاء حتى انقسم الناس حوله بين مؤيد مصدق ومنكر مكذب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ونخص بالذكر أرفعهم قدرا وأعمقهم علما وأبعدهم ذكرا وأوضحهم فهما ورأيا مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الذي قيل عنه مساجله في العلم غارت دلاؤه ببحر من العلم اللدني الزاخر ورضي الله عن ابن حامدون إذ يقول وعالما كل فن منتقا فله في كل فن تآليف مؤلفة ومن إذا قال قولا في مذاكرة فما إلى غير ذاك القول يلتفت يقول الشيخ رضي الله عنه في تفسير هذه الآية يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يقول العمل من الله ليس من محمد حتى يمكنك أن تعجز محمدا عن أن يفعل هذا لم يقل سرى بل الله الذي لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء هو الذي أسرى به وقال أيضا الشيخ رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا في ثلاث مواضع فقال سبحان الذي أسرى بعبده وقال أنزل على عبده الكتاب وقال أيضا وإنه لما قام عبد الله فلو كان الإسراء بالروح فقط لما احتاج الله تبارك وتعالى إلى الاتيان بحرف بكلمة عبد أو قال أو بروح عبده فوصفه بالعبد هذه أدل دليل على أن الإسراء حدث بالروح والجسد وهذا فائدة قوله أسرى بعبده وقال أيضا الإسراء يقع بالروح وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل كل الأولياء والأنبياء يقع لهم الإسراء بالروح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده دون غيره وهذا لم يسبق له نظير فيما رأينا وسمعنا وقد تغنى الشيخ بهذا الإسراء في كثير من أشعاره من أشعاره الأخاذة الجذابة فقال يؤرقني ذكرى سراه بمكة وقد كدت أسري أو سريت كذلك سريت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء بين دين هنالك وقال أيضا فسر سرى بالسر للسر وحده ولم يك إلا الحق والسر لاهوت ورحم الله الشوقي إذ يقول يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سريت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء فضل عليك لذي الجلال ومنة والله يفعل ما يشاء والله يفعل ما يرى ويشاء والعرش تحتك سدة وقوائم ومناكب الروح الأمين وطاء والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء أما موقع الإسراء والمعراج من الأحداث الإسلامية فهو فيصل بين عهد مكة وعهد المدينة ومع ذلك أيضاً كان اختبارا من الله تبارك وتعالى للصادقين ممن اسلموا على يد محمد صلى الله عليه وسلم والكاذبين ليمتاز المجرمون من الصالحين وليمتاز الاقوياء من الضعفاء بل ليظهر الخبيث من الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل مرحله جديده في إسرائه فكان بحاجة ماسة إلى أقوياء وإلى وإلى رجال يصدقونه في كل ما يأتي به من خبر السماء كما قال له أحد الشعراء قل لنا ما يأتيك فقط من عند ربك ونحن وراءك فهو صلى الله عليه وسلم لم يعد في هذه الآونة يحتاج لمتشكك وضعيف الإيمان وضعيف الإيمان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وفيها ما فيها مما لا يسمح الوقت بطرقه لأن الإسراء والمعراج كان إيذانا بصبح جديد للإسلام وإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم صبح تنفس بالهدى يسبي العيون إذا بدا وزين البيت الحرام شذا وماس وغردا خطر النبي به وجبريل الأمين له حدا والكون يا للكون متحد وبالحسن ارتدى هي رحلة في الله ما أبهى الصفاء وأغيدا فيها أفاويق الحقيقة ثرة فيها الجدى وزين البيت الحرام فظل يرتقب الندى فتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شذا فتساءل الحدثان والثقلان ما هذا الصدى فأجابت السبع الطباق سنا بعالمكم بدا فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمدا جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى نادى الملائكة في العلا حي النبي محمدا وختاما أوجه الشكر الشكر الخالص لهذه اللجان مهتمة بكل ما هو من شكله أن يميز أهل المدينة عن غيرهم عالمهم يدرس العلوم في كل ساعة يري الفهوم الحمد لله مبولا من نجي سنتي الله تبارك وتعالى دي jéem a gàttal li ñu wax nii rek ndax comme temps amul te dañuy dawanteeg moom ñi ngi doon wax ci téere boo xam ne Isra wal Mi'raj cheikh Mouhamadul Mahi Cissé moo ko taalif ñi xamee ko ci ba muy ndaw léegi ci nit koo xamante ne dafa mel ni mu war a mel wa maa lii laa arumu ladayka waslan wa anta cheikhu baabuka duuna saddi loolu la waxoon ci xasida bi nga xamante ne sama nijaay junju na ko léegi téere bi nag mi ngi ko taalif ci rañaani yenentu bi sallallahu alayhi wa te eh, rañaan boobu ñun ñëpp xam nañ ne kéemtaan yu bari ñëw na ci ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi mu jugee ci ay xat-xat yu metti yàlla def na isra wal miraj ñëw nekk kado pour moom gannaaw biñ ko mbugalee ci taif mu nekk ci ay nit yoo xamante ne dëggaluñ ko ci dara ba mu war a dëgmal dem gàddaay ci yàlla ndax ardullahi waasiatun إذا كنت في قوم يذلك أهلها ولم تك ذا عز بها فتغر بي فإن رسول الله لم تستقم له بمكة حال فاستقام بيثرب موضوع bi nag ci téere bi bëri na lool lamboo na ay njëriñtam ndax leeral la pour ñi nga xamante ne taxaw nañ ci defe naa ne sikk yi nga xamante ni am na ñum jël ba wàccee leen yoon ci li aju ci isra wal mi'raj ñoom duñ ci yegg ma tànn rek ñetti bunt yoo xamante ni taxaw naa ci ci téere bi benn bi muy yenant bi sallallahu alayhi wa sallam julli bi nga xamante ni jullee na ko yenantu yi ci masjid al aqsa gannaaw bi mu jógee màkka te nga xam ne ba mu leen ñëwee ne dem na bayt al maqdis ñoom ñëpp dañ ko waree na yaakaar ne kii waxi dof rek lay wax waaye aboubacarin siddiq ci ixtibaar bi mu wax ne isra wal miraaj nekk na ixtibaar yàlla mayee na ko ci mu am baatu as siddiq ndax dëggal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax na leen ne man dëggal naa yonent bi ci lu gën a sori li ngeen di wax nii waxuma la lii nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli bi nga xamante ne jullee na ko yonent yi ci masjidil aqsa moom ci boppam daf koo saxal ndax mu ne fekk na boppam mi ngi nekk ci diggante yenentu yi heure yi julli ñi jiital ko mu julli bam pare ñi koy wane ko kii mooy Malik mooy mi ki nga xamante ne mooñ lañ dénk buntu safara mu nuyu ko ak ñeneen ak ñeneen xadis bu gudd te woykat yu bëri taxaw nañ ci dëggal ko ku mel ni imaamul Busayri yi nga xam ne euh, ñu gën a màgg ci woykat yi yenentu bi sallallahu alayhi wa lañ bokk gannaaw loolu ma taxaw ci bunt ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba muy rañaan ndax dafa rañaan ak ruuxam kese wala dafa rañaan ak jëmmam ak ruuxam ak lan moo ci gis gisi baay radiyallahu taala anhu boroom xam yu bëri rawatina boroom xam-xam yi nga xamante ne lu ne rek lu leer danañ ci ñëw bugg cee def sikk pour jàngkat yu oyof bopp yi topp leen moo tax jàngkat bu nekk dafa war a xam ne war naa jàng lu nekk waaye du nekk lu mu fekk ci téere rek war na ko gëm ndax bindkat yi dañoo wute am na ñoo xamante ne yàlla ak yenentu la ñuy wut am na ñoo xamante ne seen bànneexu bakkan lañ topp ñenn ci ñoom nee nañ na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallama ruuxu rek la rañaanee ñun duñ leen déglu ci loolu ndax ñun dañoo ànd koo xamante ne wul xaamidun daf koo melaloon ne bàyyi radiallahu anhu mooy koo xamante ni masala xam-xam lu mu bëri bëri wax moom bu ci waxee rek nga fàtte wax yépp taxaw ci waxam ndax kooku dafa dëggal ci xam-xam boppam ba xam ne moom euh, xam-xamam bi bëri na te bu la waxee tamit loo nekk diingat kat da nga xam ne kii li mu wax ci xam-xam doy na bàyyi radiallahu anhu dafa wax ne ba muy firi suratul isra wal miraj mu ne yàlla subhanahu wa taala dafa wax yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam yàlla mooy nga xamante ne moo rañaanee jaamam bi jëlee ko masjid al aqsa ba aaya bi jeex mu ne bu doon ruuxam kese la du wax abd waaye dafay jëfandikoo ne ruuxa abdihi wala lu demee noonu te la ci alquran yëpp maqaama yi gën a kawe yi rangal yonent bi subha eh, tabaara eh, salallahu alayhi wa sallama abd la koy tuddee pour nga xam ne yonent bi salallahu alayhi wa lim nekk jaam lay puukare waaye puukare wut siyaada sang bi mu nekk bu nekkee suñ biir sang la waaye bu nekkee ci pays yàlla bi jaam la fa te loolu mooy puukareem euh, te puukare boobu mooy puukare bu gën a màgg moom lim saxal mooy ne isra rañaan ci ruuxu kese yàlla mi ngi koy may sax ay yenantu loolu yenantu bi sallallahu alayhi wa sallam rek jagoowu ko waaye yenantu yàlla muhammad rek la yàlla jagleel mu rañaan jëm asamaan ànd ak ruuxam ànd ak jëmmam walaw qaaranta lafdata lan taraani بما كذب الفؤاد فهمت معنا فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا kenn ci waykat yi loolu la wax boo jëloon teg baati lafzat yàlla li mu wax ne Moussa lan taraani ak li mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa zaagal basar wa maa taxa da nga ci dégg maanaa yu sori yoo xamante ne jarul ñi la koy bindal bàyyi ne bàyyi sax wax na feneen ci boppam ne wa inni lahu asri wa usri bi sirrihi lada alxadrati alulia ura mutaakifa du ne sax moom day rañaan rek waaye sax am na ñoo xamante ne dana leen yóbbaale ci rañaan bi ci sirru yonent bi salallahu alayhi wa sallam kon loolu bokk na ci li gën a dëggal ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam rañaan bi mu rañaan du rañaani ruuxu kese waaye rañaani jëmm ak ruuxu te yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla lépp lu muy maye il faut mu jagleel ko ci loo xamante ne bu ko amee ñi xam ne dëgg-dëgg boromam moom la féetoo wax na ko ci ay woyam saxal ko ci lu dul benn yoon ndax sarabika leylan summa adnaaka raqiyan ila xadratin lam tulfa mawtia axmusi li mu ko tëjee mooy wa nilta maqaaman qad taqaasara duunahu jamiu hudaati alxalqi min kulli muxlisi gannaaw bu mu leeralee ne isra wal miraaj jëmmu la amee ak ruuxu te loolu yàlla rek yenentu sallallahu alayhi wa sallam rek la ko jegleel ñi wax isra wal gannaaw bi mu xewee lan la indi ci lislaam ndax isra wal dafa ñëw pour leeral ñi nga xamante ne gëm nañ ak gëmuñ ndax am na ñu bëri tuuboon nañ ne ay jullit lañ waaye yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee ne dem na baytul maqdis rañaan na dem ci boromam rek ñoom ñëpp yàlla daf leen ñu bari ci jullit ñi yàlla daf leen na nattoo ñi dellu gannaaw ci lañu nekkoon ba yàlla abu abubakarin ci la ko mayee mu am aji dëggal ji euh, laqabam bu màgg boobu nga xamante ne ku nekk mi ngi koy bëgg ci gannaawam te dara maye ko ko lu dul gëm bi mu gëmoon yenentu ci waxtu bi nga xamante ne ku ko gëm la soxla te soxlawut ku ko weddi te comme yenentu bi daf doon dëgmal beneen xaaj si dundam bi muy war naa dem madina axkaam yi war nañoo wàcci te yàlla war na koo digal mu xeex xeexut sax ndax Baay dafa wax ne fala sayfa illa naxwa sayfin qad ictada alayna fala narda bi daymin wala bazzi jugut pour xeex waaye pour défendre boppam loolu lépp nit ñi doo leen wax joxe leen seen alal joxe leen seen bakkan te fekk gëm-gëm biñ am ci yow wérut moo tax ñoom dañoo wax ne badalna al amwala min xilli maalina wa anfusina inda alwaga wa taasiya nuaadi alladi aada min annaasi kullihim wa in kaana alxabibu almuwaatiya ñu ko yàlla booleeg ba mu yegg ak ñoom madinal munawara bañ demee dañ ne yonentu sallallahu alayhi wa sallama joxuñ ko suñu alal rek em ci waaye bu laajee suñuy bakkan ñu jox ko te bu amee noonu ñu noonoo ko te nit noonu lay wanee mbëggeelam ci kim bëgg subhanaka allahumma laa uxsi kamalaka aw thanaak ya rabbi kullu olan tanaaha fa huwa dunaka fi olaak hadi alxayaatu bi kulli ma fiha tusaxiruha yadak أوليتها علما فحاولت الصعود إلى سماك ومن العجيب يصدقون العلم وهو على فكاك ويكذبون صعود أحمد يوم أن لبى النداك فسرى إليك اجتاز هاتيك المجرة والسماك وعلى السماوات العلا على هدى حتى أتاك فأريته ما لا يرى ومنحته أوفى ولاك لا غرو فهو المجتبى وهو الحبيب ومصطفاك saida nabiyu saadatan abadiyatan lamma raak xasida bi tënk na ne yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ne mooy aji namm bu bu naree jagleel soppeem kenn du dëggal foofu xam-xam ne xam-xam mayewut ne yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam mun naa jàll asamaan ak comme ñi nga xamante ne borom xam-xam yi sikkiloo ni ñi si lañ nekk lu mu leen tontu rek mooy ويكذب يصدقون العلم وهو على فكاك ويكذبون صعود أحمد يوم أن لبى نداك ci gàttal daal mooy ne isra wal miraaj lu wér la te yàlla du ko gëmloo lu dul ñi nga xamante ni tànn na seen xol pour ñi war a gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm buy dëgg ñi ngi sant yàlla bu baax di sant lëj bi nga xamante ni may nañ ñu fursa pour ñu gaaral nit ñi suñu xel yi ñi ngi ñaan yàlla lii nekk loo xamante ne du lu taxaw te nekk bunt pour ñu ñëpp xale ak ndaw ci xadra bi ñu xam ne ñun benn càkkuteef rek la ñu am mooy topp li fi bàyyi bàyyi woon te bàyyi xam-xam rek lañu ñu njëkk a jàngal wal yowma matlabi lahum ulumu zahiratun tasxabuha fuhumu di wax ci yenentu sallallahu alayhi wa sallam ne lii xew fan yi ci àddina ñun am nañ ci naqar waaye naqar bi mooy ñu xool nuñ ñun nuñ def ba jikkoo li yenentu bi jikko woon pour nga xamante ne kenn du yab yenentu sallallahu alayhi wa sallama suñu buntu ya sayidi ya rasul allahi alamana an qaama girrun bi daari lkufri aadaaka wa gayruhu qaama fi xiqdin wa fi salafin بالزور والظلم والعدوان آذاك هذا وذاك يرمان الدمار لنا لا تبقي يا ربي لا هذا ولا ذاك كنا أجل عباد الله قاطبة كنا أعز الورى لما أطعناك لكن أمتنا يا ويح أمتنا قد ضيعوا في زمان الضعف مسراك قد أهدروا قيما كم شردوا أمما رحماك مما جنوه اليوم رحماك قد فرطت أمتي في دينها حقبا فكيف بالله يوم الدين نلقاك يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى الدهر والتاريخ كفاك كيف اشترأت على خير الورى سفها قد بؤت بالخزي ظلاما وأفاك إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته